ñu def 5e édition bi fii lañ koy defee suivi de concert regardez l'ambiance qui se présente devant la porte et l'ambiance bi nga xamanteni mo nek ci biir Guédiawaye info dina leen top ci biir indi leen lepp li nga xamanteni ni moo fi xew dara du leen fi réer jaa ngeen jëf wa ñu gis la nga ñew ñu xam la ci au service de Guédiawaye lepp luy xalé yi Guédiawaye di def dañ ci gis sa loxo tay ñu gis la nga ñew di jappalé say rak

ñu ne grand Bouba Jaxaay dafa nekk grand boo xamante ni lépp lu mu am da koy bokk ak nit ñi dafa nekk nit boo xamante c'est san façon ñun ñu lay ñaanal parce que côtoyé naa la ndax man sa jantal booy laa woon je pense bien ñu lay ñaanal yow tamit ah bi mooy cinquième fois nga ñëw di ko ànd ak ñoom lan nga gis ne moom moo des wala lan nga gis ne moom la ñu war a yokkaat. waaw man nag ça me fait lu mu ne gën a ñaanal nag mooy au moins ñu génne benn cassette ñu gis au niveau ba si diaspora bi en Europe.

ñu gën a parce que lu jot rek day yomb bis dina baax quoi maa leen di encouragé bu baax te sama teewaay maa ngi koy rafetlu di remercier ñëpp ñu fi teew tamit quoi bu baax. merci Younguez ci sa participation et que gis nañ ne prestation bi nga def rafet na trop et bon vent et bonne continuation. ok merci à vous de même. toujours ñoo ngi ci cinquième édition Nice Time bu defal Nice ñu toog ak Grand Daniel Grand Daniel. ñu gis la nga ñëw ànd ak njaboot gi ah ñu gis décor bi mu rafet lool nga ñëw taxaw mu mel ni lan mooy say tànk la moo la fi indi. Ah, sama tànk mooy ñun ñi ay dëkkandoo Habib lañ faaw ñoo màggandoo man ak moom ñoo fawandoo en France bu demee ba am lu mag lii dañu ñëw jàppale ko. loolu la ñuy ñaan moo tax ñu def groupe ñii ñëw jàppale ko quoi waaw ah, man moom ñoo fawandoo ñoo bokk koy temps enfant ñoo fawandoo temps enfant. kon xarit dina gën doomu ndey. ci xaritoo boobu noonu depuis xale ba tey jii nii kon yow c'est la cinquième ngay assister defal nice. non deuxième fois dama voyagé woon nag mais sama sœur ñu ngi doon assister man daaw maa ngi woon fii waaw. la famille ñoo ngi ñëw yow tey boo doon am benn message booy jox euh, Habib wala benn conseil booy jox waa defal nice loolu la wax. non du leen jox conseil sax ah, conseil xam naa ñu ngi ci jàpp ñu ngi dëgër quoi maa ngi leen ñaan nag patience patience ñu am na ñu continuer ah. sa la.

ah dañ koy wax mu continuer ci lancé bi ah, mu wax mu continuer daal ndaxte yoon bu mu nekk baax na mu continuer dañ koy wax mu continuer ci lancé bi yoon bu mu nekk baax na mu continuer Habib say rakk nee nga continuer ci lancé bi lancé bi nga nekk mooy yoon bi boo ko bàyyiwul la di nga mus jot li nga xamante ni mu ngay atteindre kon Habib. bon Paulette Paulette def. ça va waaw. Paulette

possibilité pour nous assister parce que mon collègue ko une édition ci hein, ramener éditions euh, de nice lol cette fois-ci nous na assister pour la première